depuis 1958 booba léegi maa ngi topp ci moom bi ma ko gisatal topp Hadj Aline Cissé bi ma ko gisatal topp ci Alhaji Abdallah topp ci Alhaji Sëriñ Dam topp ci Alhaji Cheikh Tidiane Ibrahima Niass mi nuy door a ñàkk léegi Cheikh Tidiane Niass ku baax la ku yéwén la wante ku tabe la ku yaatu ab dënn la ku mën a muñ la woon jaamukat ab yàlla la woon te wuufoon na taalibe bàyyi yépp nag rawaate nag ñu mel ni ñun nga xam ne mooy muqaddam yi bàyyi jiitaloon ci kanamam nekka la nit koo xam ne jaamukatu yàlla la nekk la nit koo xam ne wax naa ne ku bëgg njaboot la wante ku bëgg xam-xam la def na ci lim ci war a def yépp nag it la koo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bëggoon na ko lool ñu ngi may nettali bàyyi dafa mas a woo Alaaji Abdullah ak sëñ daam boo ñëw mu ne leen dama bëgg ngeen aal ma ci Cheikh Tidiane Niass mii ndax yàlla ma ko bëggaloo xam nga ko toll ni Cheikh Ibrahima Niass bu waxee loolu ci doomam te seedeel ko ay doomam yuy ko mag ne baal leen ma ci nag yàlla ma natt ci moom ma bëgg ko xam na lim ko xëy na lim ko tuddee sëriñam muy Cheikh Tidiane la xëy na lii waajuram wu jigéen teel a làqu la xëy na xëy na xëy na yàlla moo xam waaye ak moom mi nga xam ne loolu la waxoon moom Cheikh Ibrahim kon Chafiyan Ibrahim Niass aalim la woon wante taqi la ko ragal yàlla la jaamukatu yàlla la ku mën a jokk ak bokk la ku daan dimbale way néew doole yi la sawa un ñim xam ak ñim xamut sawa un ñi ko jege ci bokk wala ñu ko sori sawa un ay taalibe wala ñu duwul ay taalibeem sax noonu la ko yàlla bindee woon kon ñun duñ def lu may di ñaan yàlla fay ko aw yiw fulandal ko lépp lim doon def ci baax xam naa ne rek ala kulli xaal euh, ñàkk ku baax waaye ñàkkun ko sax ndax demut mu ngi nekk ak ñun ñu nit noo ngi nekk ak moom ba xaw yàlla moom moom la soob mu yéegal ko ci barzak برزق مولانا الشيخ احمد بن محمد التجاني يقول في برزق مفك بايم وانت مفك مامهم الاجي عبد الله لولو لولو نكون هناك دقار ان نكون هناك نقدر نوحتان سجناو متى غور غور لو بوي وقتان سجناو مو نك الواحد لولو لو باهلا تمام نك غور غور لو ba danañ waxtaan gannaawam lu baax comme ni ko woy woykat bi waxee rek wa innamal mar'u hadisun ba'dahu wa kun hadisan hasanan nit ku nekk bés dana ñëw ñu wax ci sa mbir sa gannaaw li ñuy wax war a waxtaan ci sa gannaaw nekk loo xam ne lu rafet la wax naa ne aalim wax naa ne taqi la wax naa ne abid la waasixul sadri la moo tax ñu ngi ñaan yàlla dugal ko ci barzaq Mawlana Cheikh Tijani mu fekkee ay baayam ak ay ay maamam da ko fenn wootu wutu itam di Cheikh Mouhamadul Mahi